ay ca bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na mbokk yi bàyyi jiili ak aadama ak mbokk yi seetaan wasaare làmb fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew maa lay safoo bu baax di la bégee di la baalu àq di la baalu àq di ñaan yàlla suñu borom boole ñu jéggal actuellement weer bi wala ñetti weer yi nekk na weer yoo xamante ne vraiment weeru làmb la programme làmb yi bari na boo xoolee samedi bari na ay làmb yu amoon. boo xoolee dimanche bari na ay làmb yu amoon mais loolu yëpp dañ ci indi jàngat gën leen koo dégtal yow mi nga xamante ni yaa bëgg a leerlu ci champion bi nga xamante ni bëri na ba pare lan la ci bàyyi ji di gis ban taxawaay la mbër mi war a mën a taxaw ban gis-gis lañu am ci moom loolu yëpp dinañ ci waxtaan ginnaaw loolu dañuy njëkkee stade Diom Iba suñu papa sëñ Modou Niang moo ñu fa woon combat bi grand combat bi doxoon ci Concorde ak Balla Lour dañuy dem xool lépp loo xamante ne xeetu ambiance la cosaan la ak combat préliminaire su ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi ay ci aadama ñu dem ngemb lu ñuul na moom bi ñuul na mu laal saafara bu ñuul moo taxit ñuul na ndeysaan Omo bu Badiana ak Moussa Ndoye ñaar ñu ngi xoolante ci bu Badiana Moussa Ndoye Moussa na baax na de Moussa cokkaas bi baax na sa tànk yi la jëm Moussa sóoraaleel ëmma Moussa cokkaas saat na Moussa bu Badiana ëmma dafa bëgg dem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 Eumeu Sène numéro wala boog Eumeu bu Badiana war na ndomba Moussa Ndoye lu mu ko nar lu nar Eumeu lu nar daan na daan na ko ndeysaan Eumeu daan na ko ma mbooloo mi eh, Eumeu Sène mbokk yi a ko gisandoo loolu ambiance baa ngi noonu cosaan yaa ngi noonu aada yaa ngi noonu ginnaaw loolu dañ leen di ñëwal ci combat bi nga xamante ne mooy combat spécial bi doxoon ci xale bi nga xamante ni mooy fëgala bu ngor ak motolaay motolaay ak fëgala bu ngor vraiment mu nekk combat boo xamante ni combat bu neex la gis naa beneen xale boo xamante ni li koy topp ci mbooloo bari na torop muy fëgala bu ngor waaye gis naa ci moom vraiment corpulence boo xamante ni ndaanaan la ci làmb ginnaaw loolu dañuy dem xool combat bi su ko defee ñu dellu siwaat ci plateau bi ñu dem xool motolaay ak fëgala bu ngor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 moto laay ndànk ndaysaan moto laay tànk yi ni mu taxawee baaxul waaw waaw baaxul fëgg la agressé na ko na moto laay tànk yi dafa keppante ndaysaan fëgg la ndaysaan ak moto laay ndaysaan moto laay fëgg la bu ngor fëgg la na moto laay fay na ndaysaan fëgg la moto jël na tànk ba fëgg jël na ko. Feugueleu jël na ko Feugueleu jël na ko Feugueleu jël na ko Feugueleu jël na ko yéen a ngi ko dóor ci suuf la ilaha eh! eh, bu Ngor ndaanaanu làmb la eh, Feugueleu yéen a dox ba ci kaw dóor ci suuf Ngor yëngu na waaw waaw. Euh, vraiment ñuy félicité waat bu baax a baax a baax Feugueleu bu Ngor xale la boo xamante ni. vraiment bu ñu ko jàppalee ci làmb lépp lu ngor bëgg ci champion wala ñu yaakaar ko ci champion dina ko indi lépp lu ñu yaakaaroon ci xeeru ngor yaakaaroon ko ci eh, yeneen champion yi nga xamante ni dañ daan waree ngor fëgale bu ngor mun na ko indi ci ngor motolaay ñu koy encouragé waat bu baax moom it vraiment euh, def na li nga xamante ni moom la waroon def mais dafa am erreur yu mu def ci biir combat bi tànk yi dafa jegante trop te adversaire bi boo njoolee adversaire bi nekk ndaama faw nga ubbi sa tànk yi écarté ko wàcc ci suuf jàkkaarloog moom su ko defee bu lay mën di dóor ko nga koy gis soo koy mën di dóor danga koy dóor te moom it du du du du mën a du mën a rëcc ci coup boobu. ñu leen di encouragé bu baax su ko defee léegi dañuy dem ci grand combat bi nga xamante ne moom la ñu tubbee woon euh, drapeau Papa Thiam Gaston.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 ndaysaan Balla Lour moo la féete ndijoor ngemboo ngemb lu bula li comme corde moo la féete ngemboo ngemb lu weex ñoom ñaar ñu ngay lewaatoo lewaatoo bu diib ñu ngay lewaatoo lewaatoo bu dal ndaysaan Balla Lour déplacé waat na suul na tànk yi nee na ma ngay déplacé waat suulaat na tànk bi Balla Lour comme corde ñu ngay lewaatoo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 Balla Loul moo ngemboo ngemb lu bula li takkaay bi takkaay yu bari comme Concorde cokkaas na daw na ñëw ña ngay xeex jàpp nañ laay laay la laa Balla Loul a ngay dóor Concorde tël na ko ndeysaan picc na ko laay laay la laa oh! oh! Concorde daan na ko jël bu rëy Concorde daan na ko jël bu rëy laa ilaaha illallah félicitation ki nga xamante ni mooy Balla Lour wala comme corde maa ngi koy félicité bu baax di encouragé Balla Lour vraiment ñoom ñaar bi ñu taxawee da ngay gis ni Balla Lour moo xaw a ëpp volume mais comme corde ndaanaan la ci wàllu bëri yaakaar naa ni place am ci làmb du woon fii yaakaaroon nañ ni mën naa gën a sori ci làmb waaye gis nga làmb saa su ne muy wane ay réalité am saa su ne muy wane ay yeneen mbir yoo xamante ne daawoo ko yaakaar ci moom comme Codou da koy gis ci lutte traditionnelle bi muy wane boppam da koy gis muy compétir wane ne ni bëre la bëgg ci biir bëre bi gis nañ xarañteef bu mu bëree dóor takk daw attaqué bëre bëre bu rëy bi ba daan jël bu rëy Balla Lour ak mañaar ñu ngi koy félicité waat bu baax comme Codou di wax ni euh, làmbam ubbeeku na war naa mën a bëre ku nekk war naa mën a dem ci kaw. war naa mën a joteeg yeneen xale yi nga xamante ne war naa mën a bëri moom. ginnaaw loolu dañuy barastiku rek ci dimanche bi ki nga xamante ne moo xewle woon di njàndam production di suñu papa Xaadim sàmm fële ca stade arène nationale doxoon ci diggante xale bii di euh, xale bi nga xamante ni mooy kéwal moom moo waroon laaleeg gone gi dëkk caare géej muy muy muy ñàkk jariñu Adama gis nga ndeysaan bu lekk combat boo xamante ni vraiment neexoon na trop dañuy dem arène national wan leen dugg ci mbëri wan leen ambiance wan leen lépp loo xamante ne jot na faa xew combat préliminaire yi ñu dellu si ci làmb ji ay ca Adama ñu dem Bébé Balla Ram Diop ñoom ñaar ñu ngi noonu di lewaatoo Bébé Balla nag dafa nar a dem Bébé Balla sëgg na lu mu nar daa fas yéene bëreeg Ram Diop Bébé Balla Ram Diop door na ko dal na Bébé Balla moytul am na lu naaw Ram Diop jëli na daa mën a bëre Bébé Balla fi ko yegg sori na da génn li mu yàbbi lan la protestant bi naaw na wala naawut ah Adama protestant bi naaw na wala naawut Ram Diop. Bébé Balla ñu ngi jàppante Ram Diop da koo bëgg sulli laay laay la laa xale yaa ngay bëre eh tegal fees bañ na <laughs> mbot laay laay la laa eh, waay Bébé ngi eh xale bi daanaan la laay laay la laa eh Balla Gaye numéro yi mu nekkoon combat boo xamante ni vraiment combat bu neex la muy dox ci diggante Bébé Balla ak Ram Diop. Bébé Balla wonewaat na boppam ci làmb ndaanaan la vraiment am na xarañte bu nekk ci moom te corpulence boo ko gisee keroog état de forme bi mu indi nga xam ne xale bi liggéey na. vraiment ñu ngi koy féliciter bu baax moom Bébé Balla di encourager Ram Diop ndax tey bu ñu nee caatu Daouda Fall défaite bi mu njëkk am ci làmb Bébé Balla moo ko daan Bébé Balla moomu ndaanaan la ci làmb ñu bari na xëy na dañ koo xam waaye place am ci làmb du fi na ko ay moroom jël. mu fexe gën a góorgóorluwaat war naa mën a wane boppam bu baax a baax a baax ci làmb ñu koy féliciter moom bébé la ñu dem indi leen combat bi neex bi nga xamante ni moo diggante Sa Ndingler ak Alboury nañ leen dem arène nationale ñëw ci combat bi def ci jàngat dellu siwaat ay ci aadama wax na dëgg ba koy jaajëfal bu baax mi noonu ñoom ñaari mbëri ndaysaan dox ci Alboury moo la wan ginnaaw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 may félicité waat bu baax Alboury di encouragé Saal Ndingue Leer di ko wax ne moom ndaanaan la ci làmb Saal gis naa ko ci lutte traditionnelle yi li mu ciy def xëy na nag erreur dafa am ci biir combat bi te erreur bi bariwul ndax arbitre dañ na bëreet rek mu wuy si ci Alboury ci li mu bëggoon Saal waru woon wuyu si Alboury ci xeex bi mais da ko woon wuy si ci bëre ndax Alboury pour mu daan Saal faw mu xeex ak moom xeex ak moom ba mu fàtte xeex bi ñu bëre ñoom ñaar mais nag erreur bu amul defet du am Saal defet bi mu am bërki euh, démb daanu na ci digganteem ak Albury waaye defet boobu teewu laa mën a dem fi nga bëgg a dem ci làmb ñuy félicité waat bu baax a baax a baax Albury ndax nee na maamam bu ñu ko mësaan tooñ day bàyyi ba ñu mat fukk mu boole duma waaye vraiment wane ne ni moom it ndaanaan la communication bokk na ci liy neexal làmb waaye Albury bëreem bokk na ci liy neexal làmb bu daanee ba pare feccam dégg gi ci moom bokk na ci liy neexal làmb ñu koy félicité bu baax di wax ni ay adversaire am ñu ngi ci kaw mun nañ koo jël. Alboury am na concurrence bi am na bëre bi signature contrat am day neex su bëree day neex bu noppee ci bëre bi sax dafay neex ñu koy félicité bu baax a baax ginnaaw loolu dañuy dem ci beneen combat bu dox ci diggante. xale eh, combat spécial bi su ko defee ñu dellu si waat ci plateau bi Adama nañu dem ci combat spécial bi na Sa Ndereb capitaine Dina Sa Ndereb la wan ñuul li ndaanaan la ci làmb capitaine Dina Yoof la jóge ndaysaan waa Yoof a ko indi ma nga noonu moom it ndaysaan moo ñu xool ni ñuy bëree kaay ñu xool ba xam dañuy xeex kaay ñu xool ba xam dañuy laale ñaari xale yi ndaysaan Sa Ndereb ndaysaan jiital la tànk capitaine Dina jiital tànk di joor leewaato ndaysaan ku ci nekk mu ngi natt sa morom muy capitaine Dina di Sanderep ñoom ñaar ku ci nekk ñu ngi xool say bët wala mu ngi xool moromam ci bët ndaysaan gis nga capitaine déplacé na ba fi Sanderep taxawoon mu taxaw fa waaye Sanderep mbëru simple la daa mën a bëre dagg na leewaato bi. ndeysaan capitaine Dina Sane deret capitaine Dina ngay dox ci kawam mu ngay dox ci kaw Sane deret mbëkk mu doon jël na ko jël na ko takk na ko Dina takk na ko Sane deret da laa ilaaha illallah daan na ko laa ilaaha illallah Dina daan na Sane deret Dina daan na Sane capitaine Dina daan na Sandareb capitaine Dina daan ñuy félicité waat bu baax ki nga xamante ne mooy euh, capitaine diina di encouragé Sandareb di wax ni capitaine diina vraiment ndaanaan la ci làmb écurie Yoff bi mu nekk am nañ ci moom yaakaar am na fu ñu ko teg. journée bi njëg mujj digganteem ak euh, ki nga xamante ne mooy euh, xale bi di Cheikh Super Jamono moom la mujjee bëreel arène nationale daan ko. gis ngeen ko da ndam li mu amaat ci diggante ma Sandrep moo lay wan ni capitaine diina vraiment làmb ñu ngi koy bàyyi xel waaye moom it mu ngi wane ay jéego mu ngi wane ay cër ci làmb pourquoi pas ca capitaine dina bëre xale bi nga xamante ni moo bëre grand combat bi ñàkk muy kéwel ginnaaw loolu dañuy dem ci grand combat bi doxoon ci diggante ñàkk jariñu ak kéwal su ko defee ñu dellusiwaat ci plateau bi ay ca aadama ñu dem. combat bi muy bëre Alioune Seye 2 volume bi mu indi woon fii moo ëpp bi mu yor mais moment bi li mu toll nii xaw ma ba xam doole la am waaye bu jàkkoonteeg ki nga xamante ni mooy kéwal dinañ ci mën a xam lu bari mais lu mën a xew mooy ñaq entraîné na ci combat bi fonk na combat bi jox na ko cër jox na ko daye bi mu ko waroon jox. jox na ko cër jox na ko daye bi mu ko waroon jox. arbitre ba sifflé na dimanche 12 décembre il est 19h33 ñaq moo ñëwoon ginaaw kéwal la nu jaakaar lool ñoo ngay lewaatoo mais yaakaar nga ne combat bi. rawante la rek. mag amul ci làmb sax déedéet la rek. mais gis nga dina ko yóbbu ba ci saako yi. xeex ak ñoom ñoom ñaar xam naa dinañ giit ak naas ñëwaat jàppante wala ñu. na ma sàmmal ay tànkam rek laa koy digal moom Kewel. li naan picc nga ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf na ma sàmm ay tànkam xam naa ne bés bu ñàkk duggee ci ay tànkam leneen la ñuy wax gis nga ñàkk gis nga xeex nañu. ña ngay xeex lu ma la wax dañuy xeex waaye ñàkk du xeex. Ah. ñàkk day xel ma gàtt Kewel tuuse na ko de. jàpp la bëgg ñàkk jël na ku gis nga jël na tànk ba mun ko jëlee baaxut dana xeex ñoom ñaar dinañ jàppante Ousseyn kewal lii la lii mooy fooram lii mooy fooram wala ci xeex fatt fépp di dox sa kaw di la dóor loolooy fooram kewal parce que yàgg na koo def ay ndaanaan di ci génn waaye ñàkk jariñu kum jàpp sa tànk jàpp bu baax ragal naa nga tëdd de. est-ce que xam nga ne am na confiance. am na confiance parce que xeex bi avantage am la te Ousseyn mbër du bàyyi mëninam saa su ne ku lay bàyyiloo sa mënin naan la téyal te munoo téy téy arrangé wu la kookoo yàq sa ku mën a xeex boo ñëwee naan ko bul xeex tay bëreel yàq nga làmbam bàyyi ko mu xeex ba bëre bi ñëw nga bëree moom ndax làmb loolu la lay séentu fetal nga fit fit nga fetal waaye ña kéwal mii bu sampee dëgg taxaw xeex ak ñax. Ardo kéwal dem ñaq dem na Ardo ñaq dem na Ardo. tàppal na ko ndeysaan na ko ba pare tàpp tàppal ko na ko ndànk rek. arbitre baa ngi wax ak ñoom bëri nañu ba mi-temps arbitre bi sifflé na kewel ñàkk jariñu kewel wàcc na wala boog ñàkk wàcc na ba tolloog moom kewel ngi ñoo ngi dox di demee latéral kewel ñàkk jariñu ñoo ngay lewaatoo kewel ñàkk jariñu combat bi mënut gaaw ñoo ngi xoolante ci biiri bët walla boog di nappante kewel ñax kewel ràccaat na suul ay tànkam déplacé na moom kewel waaye ñax a ngi direeku topp ci kawam ñoo ngay damante baaraam kewel boo xoolee benn loxo lay lewaatoowee daa mel dafa bëgg xeex xàcc na léegi ñaq wàcc kewel ñaq jariñu kewel ñaq jariñu bëre leen amateur ku nekk a ngi ne tekk toog di la seetaan supporter yaa ngi di toog kewel ñaq cokkaas léegi moom Kewel ñàkk boo xoolee nangu te xeex li muy def di dëgg ci moom xeex nañu dóorante Kewel ñàkk ñàkk a ngi koy accéléré. mu ngi koy accéléré Ousseyn ñàkk fi mu toll nii daa bëgg a jeexal combat bi te wax naa la ko faw ñu xeex ñoom ñaar nga wuy ko ci xeex mais gis nga Kewel dafa muus day natt rek sànni benn fermé waat garde bi parce que taxawaay bi dafa baax Kewel mbër am na nu muy taxawee doo am foo ko jaar. te géwal noonu la mel taxawaay bi dafa baax gis nga ñaq daaw na jëli ko ñoom ñaar faw ñu xeex ñaq faw mu taxaw xeex ak géwal jéem ko juumloo ci xeex bi mën koo sàcc daan mais boo ñëwee bu koo jàpp rek du yomb gis nga Ousseyn day wuy si ñaq wuy si na ci xeex bi du wari parce que faw ngeen xeex làmb ji xeex moo koy jeexal faw ngeen xeex ba ñaq ni muy xeexee baaxul de waaw parce que géwal moo ko dàq xeex parce que géwal mën na xeex gis nga ñaq daaw na jëli ko am na tànk bi bu am na tànk bu baax kal na ko mbot daan na ko wala déet daan na ko. waxoon naa la ko Ousseyn bu ko bëggee daan faw mu yëkkati ko ndeysaan ñàkk jëriñu daan na kewal ñàkk daan na. ne woon naa la lu mën xew. yéegal lu mën xew. ñuy félicité bu baax ki nga xamante ni mooy ñàkk jariñu di encouragé kéwal di ko wax làmb noonu la ñaari ndamay dugg waaye benn mooy génn benn bi génn ñaq jariñu moo ko jël. kéwél nag dafa am erreur bu mu def ci kombaa bi mooy kéwél saa su ne ci làmb bul bàyyi sa foor mbër du bàyyi mëninam sa mënin mooy agressé ko xeex ak moom bëreeg moom ba mu juum nga mën koo jàpp daan ko. li nga indiloon Aliou Mané pour man moom nga waroon indil ñaq jariñu ndax ku ne xam na ni ñaq jariñu ndaanaan la ci wàllu bëre. mais erreur bi nga def mooy dama seetlu ni combat bi da nga prévoir sax ni da nga koy cons te combat bi du woon combat booy cons ñaq ko waroon cons yow da ko waroon bëre. ndax li tax ñaq ko waroon cons mooy yow daan ñaq jariñu daf laa mën a yóbbu fu sore sore sore ci làmb yaakaar naa ne ñaq jariñu retard moo tax muy bëre Keweul retard boobu nag bu taxee nga mu jël la booy bëreeg moom da ngaa war a wane leneen ndax gis naa benn moment nga nga nga. tuuse ko yóbbu ko ardo muy dem nga tàpp tàppal ko loolu mooy wane ni jeexagut dañuy gën a continuer cons combat bi gis naa nga joxoñ sa cimmekaay ne leen ndànk mooy wane ni kon combat bi tey da nga ciy jël sa temps mais maa ngi félicité bu baax a baax ki nga xamante ne mooy ñàkk jariñ ni nga abordé combat bi baax na parce que ñun ñëpp xamoon nañ ni pour que nga daan ki nga xamante ni mooy xéwal kéwal fow nga woo ko ci xeex ba mu mun laa wuy ci xeex nga jàpp ndax sa foor mooy nga jàppante moom bëri wane nga ni sa tànk ci làmb du fii wane nga ni war ngaa mën a bëreek ay ndaanaan ci làmb war ngaa mën a bëreek ay champion ci làmb tey ku mel ni double moteur ku mel ni Quench ku mel ni xale bi nga xamante ne moo mel ni euh, doo euh, ki bëreek ndeysaan xale bi nga xamante ni mooy général bu faas wala yu mel noonu mun ngaa bëreek ñoom wala daan nga général bu faas war ngaa mën a bëreek yeneen xale yi ne ci làmb tey loolu bu amee euh, dañ lay félicité bu baax yow ñaq jariñu di wax ni nag làmb ñu ngi lay sóoraale ca kaw a kaw a kaw di félicité bu baax a baax a baax promoteur bi tëggoon bis bi muy njàndam production di suñu papa Khadim sàmm vraiment li mu buggoon ci bis bi am na ko réussir na ko ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax mbokk yi di leen félicité waat di leen jaajëfal di wax ni le 19 décembre ñu nga jëm fële ca ca fi nga xamante ne mooy arène nationale Euh, ki ñu fa woo mooy ki nga xamante ne mooy Leewtoo production dox ci diggante tafaatin ak Boy Niang mu nekk combat boo xamante ni askanu Sénégal gépp ñu ngi koy xaar waaye diaspora bi ñu ngi koy xaar mu nekk komba bu nar a neex saakande ak borom ki nga xamante ne mooy ah bu jeexee rek jeex na tafaatin muy muy Boy Niang mu nekk làmb joo xamante ne àdduna ñu ngi koy xaar mbokk yi ñuy jaajëfalaat bu baax képp kuy seetaan wasaare làmb foo mën a nekk ci réew mi ak bitim réew di jaajëfal ki nga xamante ni moo ma solal lii muy noobul xam ngeen ko Serigne Saliou mu ngi nekk Parcelles Assainies unité 4 en face cinéma unité 3 numéro am di 77 707 00 06 10 xam naa ne aadama bu bay si jaale rek laal ba gaawal gaaw bi nag xaw ma lan la xaw ma appareil bi mooy waaj a fay. xaw ma batterie bi mooy waaj a jeex xaw ma lu mu demee loolu waaye Adama daal mu ngi naan ma gaawal gaawal gaawal mbokk yi comme mu ngi ma gaawal gaawal dañ leen di jox dig daje ba ëllëg incha ci beneen jàngat laa bu jërë ngeen jëf.